bismillahi irrahmaan irrahim wasala allahu ala nabiil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa asaabihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi ziyaare bokki jullit yi bokki taalibe yi di jiital ci ziyaar bi xalifa général des mourides cheikh mouhamadul muntaqa di ñaan suñu borom li ko sàmm li ko aar ba ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yal ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ña doon bébat di nuyu sëñ Ahmadul Muxtaar yi jëwriñam ji ko nekkal fii Daarul Xuddus ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Moustapha di ñaan suñu borom wan nu kiimaanu gudd fan ci jëmmam di nuyu jëwriñu kër gi sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Sidil Muxtaar di xalifa Cheikh Mouhamadul Lamine di nuy mboolem ahfaad Cheikh Mouhamadul Moustapha yëpp ñu nekk fii tey ci eh, daarul Khoudous di waaj bisub isrina muharram muy fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fukki guddi ci aw tamxarit wi sëriñ Touba fanaansee ci dëkk bi nga xamante ne ni moo ko gënal ci dëkk yi dëkk bi taxoon muy wax waccal ilaahi maskani Touba abat mislasmiha bi jaahi man abat di bisum ñaan di bisum fàttaliku di bisum yërmande di bisum njëggal waaye saa yu bis bi jub see nag am solo ko bis bi am solo tax na ñuy amal ay jataay yu waxtaan ngir fàttalante ak dollente ak laayante biir te lépp jëm rekk ci fàttali dundu njaboot gi seeni jikko yu am solo seeni taxawaay yu rafet seen yitte ju kawe seenuk am njariñ ci nit ñi loolu tax na waxtu ci nekk ñu seet ñenn ci njaboot gi di fàttalante ak bokki talibe yi seeni jikko ngir man mag mu baax day wax ni booy wut référence xool ko ci biir suuf waaye ñi ci kaw amaana boo leen royee mën ngaa jóom ñooñee ci biir suuf nag dañoo tegoon seen tànk fa leen suñ borom joxoñoon wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu ca diggu yoon wala ñaw te fa suwuñ ko jaaruñu ci ñàll wa tey nag ñu tànn kenn koo xamante ne nii Serigne Aliou Mbacke lañ koy wax di doom ci Cheikh Mouhamadul Moustapha tooge ab jataayam di ñeenteelu xalifam ñu bëgg a waxtaane lenn ci ay taxawaayam waxtaane lenn ci ay jikkoom waxtaane itam lenn ci ay jaar-jaaram ngir mag ñi mën cee fàttali ko gone yi mën cee roye ndax jamono laaj na ko te mag ñi buñ leen bëggee xam faw ñu delluwaat ci seen démb moom nag doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ñu bàyyi xel bu baax a baax ni seen waajur wu tedd wa daan wax ni sama doom joo làmb man ngay daj loolu nag ci saayir mënees na ko firi waaye baatin ba suñ borom rek ko xam ndax yaa xari xarimaam mi nga xamante ne ni mooy waajur xarimaam mu ndaw mi jur sëriñ Aliou ak sëriñ Ahmad Tindo di yaa ba moomee ak soxna Amintaloo ñoo bokk xari xarimaam kon bu waxee loolu ci saayir mënees na ko firi waaye baatin ba suñ borom rek moo ko xam doon na wax itam ni du ma jur ku ñàkk joom duma ma jur ku yaafus te loolu feeñ na ci njabootam ci seen taxawaay moo tax tey nu ngi toog ak kenn di sëriñ bay Longoor bokk ci jawriñ yi kër gi bu saahibu maktabati nuur di kenn ci liggéeykati kër gi kenn itam ci koo xamante ni nii kër gi rek moo ko ñor sëñtuwaa Tuubaa ku ñor léppi sëñ moom la teg loxo fas yéene mu jëm ca kanam fas yéene itam gone yi mën koo dund te lépp ñu di ko roote rek ca ñu mag ñu démb doonoon itam ci jëwriñi sëriñ Aliou diir bi mu doon ab xalifa doonoon ab loxoom féete woon ko ci wet gu bare bari loolu moo tax ñu tànn ko tey ngir mu andil nu benn tënk ci Seydina Aliou moom yi kon sëñ bay bismillah bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidi alxalqi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi amin jërëjëf sëñ Ahmadou Ndiaye Nguerane ñu ngi lay ziar baax di la ndokel di nuyu bokki jurit yëpp bokki taalibe yëpp ni ko waxee rek nuyoo bi daanaka tënk nga ko jërul nu ci jaaraat xanaa rek ñaanal kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi xadimul Moustapha jëwriñ yonent bi ci kaw suuf sun boroom yàggal ko fi te wéral ko yàggal fi rakkam jii di sunu kilifa di sunu sang di sunu jëwriñ fi daaru xudus mu Cheikh Ahmadul Muxtaar wahaballaahu lahu maa lahu xtaar di ñaanal njaboot gi ak jullit yëpp nag taalibe yëpp sun boroom dolli nu ndimbal ak yërmande ak ñeewante ak mucc ci musibe yeeg balaa yeeg mbas ak tiis yeeg bàkkaar yeeg begoor yi ak lépp luy tiis rek nu mucc ci ci xurmay gaa yu baax yii nga xam ne ñoom lañ topp daraje xurmaatillah te xurmaatillah yooyee pàkki biiru nekk doon ci benn muy daaru qudduusi boroom wax ne li rabbil alamina mursili ahmada sallallahu alayhi wa nu teew fi tey fii ci bayti ngir rek fàttaliku ndax innamal amalu binniyaati wa niyati tabarruku bi saadaati sëriñ bi ne xoqal bukaau ala saadaati namwaati tabkil araadi alayhim ka samaawaati bakaytu xablu ala saadaatin amwaati tabkil araadi alayhim ka samaawaati dafa yey lool nuy fàttaliku gaa yu baax ya sang yi nga xam ne ñoo xàll yoon wi ba mu yegg si fii buñ toogee ba lépp dal neex lépp tege ci yoon raay bi tege li ñaan raay bi tege ci saxaar gi tege ci raay bi dox bu baax laaj na nag nu toogaat sant delloo njukkal fàttaliku ña nga xam ne ñoo xàlloon yoon wi ba muy e, jafe ngir loolu kenn ca sang yooyu di Serigne Aliou Mbacké doonoon ñeenteeli xalifa Cheikh Moustapha moom lañ bëgg a ànd rek seede ci moom wax ci moom tuuti loo xam ne. dana mën nekk référence royukaay pour ndaw ñi feeñ gannaawam ak ñi ko yaakaar ñëpp ñu mën cee bàyyi xel ngir moom amoon na ndam réussiroon na ci diine ak ci duniya kon fa mu jaaroon na mu meloon ba réussir suñ ko xamee rek dana jariñ ku koy déglu ku ne te it waxtaan gi danañ ci am yool moom it suñu borom dana ko ci dolli. sang bu tedd bii nga xam ne moom la ñuy war a waxtaanee muy Seydina Aliou Mbacké mi ngi gane jamono fii fi Touba kan moo koy jur Cheikh Mouhamadul Moustapha taawu Xadimal Moustapha mooy woy juram moom sëñ Aliou Mbacke way juram mu jigéen di soxna xarimaam Diop diggante boobu la feeñe ci ñaar ñooñi 1918 ci la sëñ Aliou Mbacke gane jamono 1918 mi ngi jamono fii ci Daaru kër gii tey njabootu Serigne Bachirou ibnu Cheikhil Khadim foo fii ci biir kër gi la sëñ Aliou Mbacké gane jamono tey xalifatul muridina al cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir fa la dëkkee waaye juróom wa cheikh Mouhamadul Bachir fa la dëkkee woon waaye 1918 jooju fekk na Cheikh Moussa moo dëkkee kër ga ba fa la sëriñ Aliou Mbacké gane jamono. yàlla dogal mu yaroo doon Cheikh Moustapha ba war a dal jàng alquranu karim toll ci juróom benn at juróom-ñaar Cheikh Moustapha jaarale ko fa ñuy jaarale ñi bëgg baax ñépp te war a baax muy tabal ko ci daara mu jàng alquranu karim fi daaru rahmaan gii ci charxu Touba mi ngi ci sowu Touba soriwul dara foo fii la jàngi alquranul karim dal fa alquran jàng ko ba mokkal ko bind ko ba mu noppee ca loola dal di suubu ci xam-xam tafsir téere boobu di alxuraanul karim mu tafsir ko kon jàng na alxuraanul karim am na ci xifsu mooy wattu na ko kitaabatu bind na kaamil waaye tafsir na ko it muy am solo loo xam ne kon bokk na ci ngànnaay yu jëkk yi nga xam ne moom lañuy ñuy waajale ku war a jiite même sax ku warut a jiite te ab jullit rek loolu mënta ñàkk ci yow farata la waaye moom mii day jaaral nañ ko foofii ba yooyu yëpp mu matal ko yar ko ci diine gannaaw ba nag la daal di sóobu ci njàngum xam-xam daal di commencé njàngam jàng na ci borom xam-xam yii ci Touba yëpp rek mboolem ko fi digg diggante Touba ak Njaareem muy borom xam-xam Serigne Aliou Mbacké taataan na xam-xamam ba jàng ci moom xam-xam lu mel ne xam-xami diine yi gannaaw alquranu karim kal fiq ka tawxiidi wa axawayhi al fiq wa tasawuf jàng na leen ci mboolem boroom xam-xam yii fii tuubaay yépp ak njaareem ba géeju ci xam-xam ba mel ne téere yi nga xam ne moom la waroon a jàng ci réew mi yëpp eggal na ko loolee moo waral way juróom wu tedd wa cheikh Mouhamadul Moustapha boole koog magam ji sëñ Mahmoudan xariloo moom cheikh Moustapha yóbbu leen gànnaar ci ardul bayaadiin ñu war a mottali ji seenum njàng nga xam ne alquran bu ko daan jàng day mel ne euh, ab naar moo koy jàng fonkoon njàngum alquran lool ay waqafam suba balaa xëy digg bëccëg tisbaar fuñ ñu tisbaar yaa ngi koy digg baat bi riir ci alquraanu karim muy ku fonk xam-xam bëgg alquran lool fonk it xasiday sëñ Tuubaa yi lool rawatina gàncee wax jaalibatul maraaxi bi moom di mosu ko jënnal Mustafande jaalibatul maraaxib ak ñaari waqafam yooyu suba ak ngoon ak alwirdul maxuuz bu fajar wi ak bu takkusaan wi loolu it mën na noo seere ne mosu ko jëndal seere na ko egg na ci bu ma sànni tëll jóge daaru naim ñëw fii ci béyti daaru xudus bu yeg yegsee rek bu dee yoon mu ko xaw bett mu xool jumtukaay yi mel ne maraaxib bi laa ñëwut ci saasi lay daal di joxe génn bi aw rek ne demal ci Cheikh Diop mais ci bunt kër ba ca ca ma mu jox ko maraaxib nga maraaxib moom mënu ko woon a jëndal moo wirdu ma axuus ngoon muy wasifatu sabaxi wala masaayi musu ko jëndal waaye it ñaari waqafam yi muy suba gi ak tisbaar ji mus na alxuraan jooju lum tab tabje loolee ma nga ca moom Seydina Ali Mbacké bi mu jógee gànnaar ba njàngam mat njàng sax du jeex ndax ni ko euh, gaa ñiy waxe rek man taraka taalluma fal yatruki taalima ku bàyyi jàng man ngaa bàyyi jàngale moo tax njàng jeexut waaye nag li nga xam ne moom la war a mën a gànnaayu ba mën a continuer boppam nag loolu moom mat na sëkk ci jëmmam ji muy diggante xam-xami diine yi ak xam ak yi muy loxatul arabia wal alaat ak jumtukaay yi muy àndal yëpp sëriñ Aliou Mbacké euh, xereñe woon na ko ba langue bi nga xam ne mooy langue française sax euh, yéeme woon na ci bu ko làkkee wala mu bind ko da nga ci yéemu lool rawatina mbindam kon ku cultivé la woon ku am culture général ci wàllu adduna daawul jàngalu lettre de lettre français kon kooku mooy ñeenteelu xalifa cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ci xamal leen ak mataayam ak sellaayam ak dayoom bi yàlla dugalee mu jógee ci njàng moomu Mauritanie ba ñëw Touba des ci loxoy baayam bi ko cheikh Moustapha xoolee ba settantal ko moom la tànn dëkkam bi ñuy wax Daaru Naim di dëkk bu Cheikh Moustapha fonkoon lool euh, Daaru Naimi hiya naama ujaada biha lil Moustapha xabla haadul juudi wal karami yaa rabbi waasil lahu haazi bitilka kama awattahu karaman yaa yaa daa'ima niami loolu sëñ Mbàkke Buso moo ko wax Daaru Naim wax ko Cheikh Moustapha ci ngan gum fa gana ji woon Cheikh Moustapha ànd ak mago dëkk bépp Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Bachir gaa yu baax yëpp fekk na Cheikh Moustapha Daaru Naim ba béy di Cheikh Serigne Mbacké Bousso moo ko rotal ci dëkk bu sell boobe kon Daaru Naim googi nag Cheikh Moustapha tànn Serigne Aliou bakki ci ay at yu néew daal ko fa yóbbu woo mag ñi ñëpp ba ñu teew xam naa du rek 39 39 bi sëñ Moudou Moussa di sanc Taïf jóge Daaru Naim di sanc ji Taïf Mbacké 1939 ca la woo signal yi Mbacké mu ñëw mu teg ko fa woo mag ñi ñëpp boole leen moom ne dëkk bi ak li ci nekk lépp jox naa ko Aliou Mbacké mi installé ko fa bàyyi ko fa ak dëkk ba ak mboolem la ci dëkk ba muy lu yéeme lu mag it nag di it loo xam ne tegtale ne kan mooy sëriñ yi Mbacké ci at yu néewee noonu yi waxtu woow yi ak ña nekkoon daaru naa ñëpp mu wóolu ci sëñ Aliou Mbacké ba teg ko fa bàyyi ko fa ak la fa nekk lépp dal di toxu ji nag Taif Mbacké sëñ Aliou des daaru naayim ne fa nekk ca la ko mu Moustapha sant foofa ba ko fa muy saytu dëkk ba saytuwaa dëkk ba sax ci jàng ak liggéey ak gore loolu daal man nañ koo seere bu wóor ci gëstu yu sell yu wér yoo xam ne am nañ ko ci ci ci ci jaar-jaari sëriñ Aliou Mbacké daaru naayim googu di cërub sëñ Aliou Mbacké bi Cheikh Moustapha sañ ci daaru naayim magi njaari mi nga xam ne ñoo ànd na sëñ Touba yoroon daaray kaamil ja nekkoon ci di di di taxawu kaamil ba Cheikh Moustapha da leen a tànn ñoom ñëpp indi leen daaru naayim mboolem ña ca ñëpp da leen a indi daaru naayim kon mel na daaru naayim Cheikh Moustapha euh, am na fu ko teg ki ñu wax alxaaji Ibrahima ñas bu ñaseen ñëw na fii fi Touba. gane si Cheikh Moustapha ci waxtu yi nu toll waxtu yi wax set muy taw mu war fas ak ñam àndal fekk Cheikh Moustapha fii di ko di ko seet si Touba di ko nuyu si ba mu ñëwee ñu ne ko Cheikh Moustapha mi ngi Daaru Naim El Hadj Ibrahima Niass noonu la wëlbati koo ànd ak fas ya wuti Daaru Naim ba mu àggee fekk Cheikh Moustapha Daaru Naim Cheikh Moustapha teeru ko teral ko dalal ko ci néeg bi nga xam ne mooy néegu boppam dem moom dal ca fee nga xam ne falay lay dalal gan ña moom Cheikh Moustapha taxu foofa indi bàyyi Cheikh Ibrahima Niass ci néegu boppam bi ci tabax bu tabax bi nga xam ne moy bu mag ba tiwil ba teral ko lool ba ca suba sa mu xëy dellu mu gunge ko bi mu dëppee nag toogaat mag ñi ak taalibe yi ak mbooloo mi surtout mu ne ci biir am mag ñi ko fekk sax di di waxtaan ak moom di diislu fi mu ko dalal ci li doon sëñ Tuubaa ak li mu làmboo ci ay maqaamaaki ba dalal kilifa googu yi ci néegu boppam lalu boppam mu fanaan ca loolu yi am mag ñoo xam ne ñoom ñoo ngi koy réylu ak di ko ëpplu ak di ko diislu Cheikh Moustapha ca mat ga ak nite ak ngor ga ak melowa mooy leen la ilaa yéen day xanaa xamu leen ne kii kii sama nawlee te kat bàyyi na këram lu mel nii dox ci taw bi ba egsi ngir man su ma ko defalul nii mu gën maa gore moom foofu la gisee boppam kooku Cheikh Moustapha mooy bàyyi signal nii Mbàkke mii Serigne Aliou jël ci moom ngor googa ngorug Cheikh Moustapha kenn du ci ëppale Serigne Aliou Mbacké dégg naa ci lenn ci ay magam ay mbokkam ñu mbokkal Cheikh Moustapha ñu ne moom Aliou Mbacké di ngor li ñuy wax ngor dafa mel ni daf koo àggale sax foo xam ne ngor àggu fa fa Serigne Aliou Mbacké àggale ngor ñoom dañoo seereen sax ngor daa mel ni ngor ngor fa kon mel ne ku gore woon la ku woon ci ngor la moom Serigne Aliou Mbacké doonoon borom teraanga lool daaru naim ku ko fu ma sa fekk teral na la ba rus wala mu teral la ba nga jooy bari na lool ku fonkoon doomu aadama fonk nit ku mën doon doon rawatina jullit euh, mu daal di wuutu Cheikh Moustapha foofu fa daaru naim nag wéyal fa jikko ya nga xam ne moom la Cheikh Moustapha yore woon dëkk ba ak mag ña yàlla dogal mu sax ci loolu ba Cheikh Moustapha nag wàcc liggéey dellu fa baayam ak turandoom Seydina Muhammad Cheikhul Khadim Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma wuutu ko ci Daaru Xudus ci siisub Daaru Xudus bi la ko Gaynde Fatma wuutu jiite kër gépp Serigne Aliou Mbacké jébbal ko boppam ak la mu am lépp ak kum topp ci gannaawam di ab taalibeem di rakkam di ko déglu nekk foo ko bàyyam woon di déglu ndigalal kër gi Cheikh si Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma mi taaw Cheikh Moustapha noonu la ko toppee mel ne Cheikh Moustapha jógewu fu ci moom ba sëriñ Serigne mbake Mbacké fekkee yonent bi ak sëñ Touba ak Cheikh Moustapha sëñ Mbacké Madina wuutu ko ci kër gi 1978 sëriñ Aliou yeesu ci moom topp ci gannaawam def jëwriñam di taalibeem buy déglu ay ndigalam di moytu ay tereem sax fa ko bàyyee tegoon ak lam ko bàyyee woon ba sëriñ Mbacke Madina yeesal li muy yeesal liggéey li muy liggéey ci yoon wi yëpp ak ci kër gi dellu ca boroomam sëriñ Mahmoudan Xariloo wuutu sëñ Mbacke Madina 1960 67 euh, jëm 60 66 65 66 85 86 85 86 mu wàcc liggéey yàggu fi waaye yàqu fi defar na lépp di ay weer yu am doole yoo xam ne sëñ Mahmoudan téye na ko kër gi téye bu rafet. dooro teg yan bi ci loxo sëriñ Aliou Mbacké sëriñ Aliou Mbacké nag jógee Daaru Naim euh, jàpp naa ne way juróom wa ñàkkul woon lu ko déey ci ne dana tooge ab jotaayam ca la ñi na Touba ñëw sañ ci bayti Daaru Xuddus dëkke ko tàllal loxoom ubbi buntam boot njaboot gépp ñu topp ci gannaawam mu def kër gi benn feddali li fekkoon lépp mu sàmm ko feddali ko téye ko sàmm ko yeesalaat kër gii di daaru xudus dundal ko lool def fi lépp lu mu am ak yeesal kër gi ànd ak waa kër sëñ daaru xasan lu ne mu yeesalaat ko ah, na ko sëñ Cheikh Mbacke magam ja waxe woon rek wa ma ala al illa an yasuuna asaara salaf ab xalifa ku wutu lalawar mooy nga ñoŋal sàmm jeexitali kanga wootu wuutu sëñ Cheikh Mbacké loolu la waxoon bind ko foofee la tege woon fa la rakam yi tege woon bayan bi egsi ci rakam ji di Seydina Ali Mbacké 1986 mu jël yan bi saytuwaat kër gi su nooree mu noor fii ci Touba nawet mu nawet ci Daaru Nahim sax ca la nga xam ne moom la koy juróom santoon muy jàng ak liggéey ak jaamu yàlla bay jàng julli bay joxe loolu de muy jikkoy sër yàlla yi mbàkke jàng julli bay joxe ci la wuutoo magam ya wuutu baayam ba dundal kër gi lool dundal bis biinu nu jëm muy ashruna muharram mu taxawee ko ànd koog rakkam yu baax ya ñu ngi ciy fàttaliku sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóor wi ñoo bokk ndey ak baay waaye sëriñ Abdou Salaam Mbacke magam ju baax ja ñoo bokku ndey ak baay sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóor di ànd sëriñ Salihu Moustapha sëriñ Ibrahima ak sëriñ Xaadim Mbacke si Ahmadou Muxtaar mii tey yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ñu ànd topp ci gannaawam taxaw kër gi lool taxaw. ndono li lool sàmm ko bis boo bii di isrona mu yëkkatiwu ko woon na lool ci jamono sëñ Aliou Mbacké demoon na ba bis boo bii daanañ def ñetti tirbin ci pinc mi boole kook mbaarum daaru xudus mi te lépp ay fees saabu yeg yegg see adduna jëpp sëriñ Aliou tàllal leen loxo wooleen leen ñëw mu màggal bis bi dundal ko ca ko Cheikh Moustapha waxe woon ne maa leen woo ci bis bii muy isrona muharram ngir lan ngir fàttali ngir fàttali leen loolu mooy jiitu ci pas-pasu bisu isrona muharram ku jiite ay julit rawatina communauté bu day na yoonu murit jiite googee te communication jafe ca la Cheikh Moustapha defoon bis bi sëñ Tuubaa ñi bisee Tuubaa mu de ku muy ab rendez-vous ñeel murit yëpp ngir dafa wax ne da leen a woo ngir mënu leen a ñàkk fàttali batale bi ak ndénkaan li fi sëñ Touba bàyyi mu ne nag mu lëkkale ko ak bis bi sëñ Touba ñi bisee Touba kon da koo lëkkale ak bis bi muy yaar yëf woote bi innama jamaatukum haza al ijtima li uzakkirakum yowma aljamci la si laa rayba fiihi woote bi nee na taskiratu muy fàttali jaami yàlla yi sunu borom delloo la ci sunu moo waral woote bi mu yeew ko ci bis bii Seyxul Xadim ñibbisee Tuubaa ak li bis bi lamboo ci ay bóot mu boole yaar yooyu ne moo tax mu woo képp ku ko yaakaar ngir bu ñëwee mu ànd ak ñoom jàngaat fàttalikuwaat yoon wi ak ngër mi ak diine ji ak li ñu séq mu def ay waxtaan direct adressé ko mbooloo mi wax leen fi mu tege ak fi mu leen tege fi mu leen teg ak li mu leen sant ak fi war a jaar digal leen tere leen xupp leen bégal leen jox leen yóbbal ba déwénati loolu ci jamonoy Cheikh Moustapha mooy li xewoon Touba si àll yi Mbàkke ne bi mu demee ba toog jotaayu Daaru Xudus bi di jëmmi Cheikh Moustapha loolee defaat na ca euh, yitte yoo xam ne yu kawe la ba bis bi dundaat dundin woo xam ne euh, yéeme na loolu ci tënk mel ni kon Serigne Aliou sàmmoon na li ko Cheikh Moustapha batale woon ba mat sëkk muy diggante daaru naim gi mu ko jëkk a jox wóolu ko fa bam ko yaree bam mu yaru mu yeeko ko ba mu mu jàngal ko bam ne ar teg ko nag ci bërëb yi mu nekkal ko fa ba yàllay dem dox jamonoy dox ba ba mu wutu way juram la ko way juram bàyyee woon bàyyeeko ay magam mu sàmm ko baloola loola àgg fa foo xam ne kawe na njort ba mu weesu fa nekkoon. may ñëw ci Daaru Naim googi ko Cheikh Moustapha joxoon mu nefa fa nekkin wa yéeme lool ci taaru ak rafet waa tund wa yëpp sëriñ Aliou Mbacké di leen nampal di leen xont di leen dimbali te mos caa xàmmee tijaan wala murit wala xaadir walla lenn mboolem tund wa lépp rek sëriñ Aliou Mbacke tàllal leen loxo wuuf leen boot leen ba loola doonoon loo xam ne ñoom ñëpp seere nañ ko waaye moo tax it daaru naim googi Cheikh Moussa nee na ko nekkal fii Aliou Mbacke sax ci lii ma la digal muy jàng ak julli ak bay soo ko defee danaa la fi fekk lépp lu am ci dëkk dana fi am loo loolu mu Moussa digoon na ko ci laa ñu boppam waaye tey jii ma leen di wax de daaru am ak commune la am na maire ku wax sëñ Cheikh Baara Guèye di taali boo xam ne sëñ Aliou yoo ko yar moo ko tërbiya lu ne moom moo ko def ci moom mooy maire ba am nay école ay CM am nay fajukaay am na ndox am na courant dara manquétu fa léegi te yi ba ko Cheikh Moustapha di wax sëñ Aliou day neexul woon a xam neexul woon a dégg waaye tey lépp a nga fa fa tabarakallah yàlla ko yàlla yokk euh, noonu daal moom mooy doxinu Serigne Aliou am naa fii léegi sax mbindum loxoom moo xam ne daayira bii ñuy wax Ahbabul Moustapha sosoo woon ci ay sosoo woon ci ci ci ndigalam 1988 gis am naa mbindum loxoom moo xam ne bind na di soññee ci liggéey boobu adressé ko sëñ Mbacké Awa Ndiaye ma doonoon xalifa sëñ Daaru Xasan Ndiaye di di soññee ci liggéeyu booloo bi ci kër gi loolu da ciy liggéey liggéey bu am solo moom sëñ Aliou Mbacké def na ci liggéey boo xam ne waaye diggam ak njabootu sëñ Tuubaa gi rawatina sëñ Saalihu Mbacké mi mu mujjal siqal yoon wi demoon na ba sëriñ Saalihu Mbacké moom Seyxul Xadiim wóolu ko bëgg ko ba nekk sama kër bopp gii sabaat moo fi dox lépp loo fi doxal rek muy wéy demoon na ba jébbal ko kër boppam googee ngir naw gum naw Serigne Aliou Mbacké ak xam gum ko xam ak wóolu gum ko woolu tax mu dem ba daanaka dénkoon na ko baatu kër googee Serigne Aliou taxawoon na taxawaay boo xam ne Serigne Touba gërëm na ko daana defar ak bokk lu ma sa yàqu wala mu bëgg a yàqu ci bokk daana dox ay tànkam dox loolo ba loola defarwaat def na ko ay fu bëree baree baree bëri ah kon daal liñ mën a wax ci sëriñ Aliou Mbacké mooy makaarimal axlaax tab ga fokk ma waxaale ko sëriñ Aliou Mbacké kenn du ko gën a tabe ci àdduna kenn du ko gën a gore fonk diine lool woyof ak taalibe it kenn du ko ëppale surtout maanaam savoir vivre ak humanité am na bés ku ñu wax sëñ Mat Diop baayam ñëw ci sëñ Aliou Mbacke di fekk ko Darou Naim ganesi ko bi mu ko ganesee ba yeewee ku ne man de yi Mbacke sëñ Aliou Aliou Mbacke ñett daal laal la indaale ci ngan gi boo ci tànn nag ma jox la ko yóbbaale ci des mu ne ko lu mu mu ne ko sama doom ji di Mat jóob fi ne nii mi ngi dëkk Ndindi fa la dëkk mi ngi dund mi ngi ñuy dégg. mu ne ma ju sama doom ji de ak junni bii ak fas wii ñetti yi loo ci bëgg rek ma bàyyil la ko fi ah kooku de mi ngi nattu mag la de mi ngi nattu de ma sama doom ji sama fas wii ak junni bii loo ci jël rek ma ma tànnal ci loo ci jël ma ma ma ma ma ma ma ma yóbbaale yi ci des Serigne Aliou Mbacké nag Mouhamadou mii tànn kii nit. Muhammad man kii laa tànn góor ga ne ko ah, waaw baax na Mbàkke man di dama la doon seetlu rek waaye daal gis naa li ma doon seet léegi jox naa la yett yëpp dal fay bàyyi doom ja ak fas wa ak junni ba su doon man junni bi laay jël wala fas wi waaye moom won won na ko fa yii nga wax yëpp nit mu ci solo valeur doomu adama la ko won ne ko man xam naa ko duma ma gam-gamle doomu adama ak lii muy lu rëy loo xam ne mënees na ci jàng ba tey xolu sëñ Aliou akum xelam kon daal doomu am di Moustapha Ngom ci nii la nekke woon ba euh, ba ba ba ba ba le huit avril mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit le huit avril mille neuf cent ci la ci la wàcc liggéey fi daaru naayim kon mu mel ne euh, tooge na ci xilaaf ak Cheikh Moustapha fukki at ak ñaar yilif na ko daaru xuddus béyti gi am ci ay at ci kaw jamono juróom-ñett fukki at wuutu baayam fukki at ñaar dara mës ta ci moom léppi kër gi léppi yoon wi sëñ àll yi fu ci ne jëf na fa jëf ju kon kookoy sëñ àll yi Mbàkke doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha Soxna Xari Maam Diop gane jamono fii ci daaru sa daaru minan atum 1918 jàngi fii fi daaru Rahman ak fi Touba eggale Mauritanie wuutu baayam le 4 mars 4 avril 1985 euh, 1986 le 4 mars cent le 4 avril 1986 la wuutu way juróom ba toog fi fukki at ak benn ba ci mille neuf cent euh, quatre-vingt-dix-huit ci la sëriñ Aliou Mbacké door a tuxoo fii ci daaru dunya fa daaru naim fekki way juróoma Cheikh Moustapha fekki maamam ji Cheikhul Khadim fekki sangub Cheikhul Khadim sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko suñ borom dolli ay leer dolli ko ay ngëneel dolli ko ay ngërëm te tas ci barkeem mu bàyyi fi nag sëñ Xaadim Mbàkke Moustapha mu wuutu ko ci daaru Xudduus bàyyi fit sëñ Cheikh Aliou Mbàkke mu wuutu ko ci daaru Naayim ñu ànd wéyal liggéey bi wéyal ndono li di ko rafetal ba tey ji lépp ne ci loxo sëñ Ahmadul Muxtaar wahaballaahu lahu maalahu mu woo ñëpp wuuf ñëpp soññ ñëpp fa tabaarakallah yal na ko yàlla may mu yàgg fi lool ba dund dund kiimaan ci yàgg yal na ko suñu borom jàng dolli ko wér sëriñ Aliou Mbacké nu koy siyaare di ko ndokkeel di ko sargal di sargal njabootuk sëriñ Aliou mbépp waaye di jaal sëriñ Aliou Mbacké di jaal sëriñ Cheikh Aliou Mbacké kii nga xam ne mooy sëriñ Ahmadou Mbacké moom sëriñ Aliou Mbacké fan yi la suñu borom dogal mu wàccib liggéey dellu ca boromam doonoon jëmm joo xam ne ku ko mas a gis xam ne Sëñ Aliou ngi nii moom la duppi woon nuru ko xal-xan waxul xan moom Sëñ Ahmadou Mbacké Aliou moom la wutaloon fii fii kër Sëñ Ahmadou Mbacké tindoo di waaye suñu borom def ci coobareem mu bàyyi fi doomam Sëñ Moustapha Mbacké Aliou Moustapha Mbacké Aliou Moustapha Mbacké am Aliou nu ngi koy jaal di ko jaal Sëriñ Cheikh waaye di ñaan loolu gëj fi lool di ndokkeel njaboot gi yëpp sëriñ Guèye moom Daaru Naim moom sëñ Aliou moo ñu wax mukk kenn du tudd sëñ ndax te te te tuddoo ko mel ne sëriñ Guèye sëriñ euh, Cheikh Baara Guèye am Amdi Mbuub sëriñ Amdi Jaañ ak sëriñ ndi Ñas ak ñana deme ndax fa yaa xaadimal muxtaar yi laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun muqattaw kon noo ngi santaat diwaanul muridina di santaat taxawaay sëñ Ousmane Mbakke ci kër maamam gii kër baayam gii taxawaay bi rafet na lool kaar yàlla ko suñu borom tëbb kàttan wonale xol yi bañ xam bañ bañ a sax ci booloo li nga xam ne mooy ndigalal Cheikh Moustapha li jiitu ci ndigalal Cheikh Moustapha gannaaw jaamu yàlla ak ragal ko ak liggéey mooy booloo bennoo loolu it yàlla na ci yàlla may ndam sëriñ Ahmadul Muxtaar mi sëriñ Ousmane mi ngi ciy liggéey liggéey yu rëy ànd koog diiwaanul muridina ànd ko waa kër gépp di santaat taxawaayu ñi topp ci gannaawam rawatina ku mel ne Ahmadou Diaye Ngeeraan fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina yàlla na yàlla xeeb dolli yàlla na nu yàlla tëbb kattan gunu mën a liggéeyal yàlla ci ñu sell ñu tedd jën yàlla booleel muy njabootu sëñ Tuubaa njabootu Cheikh Moustapha jërëjëf sëñ Mbaye Longhor ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ni nii doon na ko amal waaye ñuy wax bokki julli rek waxtaan wi buñ ko barkeeloo nañ ko jariñoo ay bind lañ doon nafaraat di fàttali ay jikko di fàttali yitte ju kawe ak pas-pas ak taalibe ci jëmm ji di Serigne Aliou Mbacké nga xam ne su ma bëggoon a résumer damay wax ni jaamu yàlla la bu nangu ak njaam te loolu la seen maam ja doon wuyoo Abdul Xaddim di ab jullit bu rafetal ak njullitam musta am xaar ma yàlla ak benn jullit waxuma ab tarixa waaye benn jullit rek moom masa amal xaar ma yàlla amut ñëpp lim yéene boppam la leen yéene di taalibe Sëñ Tuubaa bu ko gëm te doyloo ko boolewut Sëñ Tuubaa ak dara loolu ñëpp mën nañ koo seere di nit ku yéene ñëpp jàmm loolu itam bokk na ci jikko yi nga xamante ni war nañ ko roy ci moom mu doon nit ku woyof koo xamante ni màndarga la yu bokk ci ay melokaanam doon nit ku mën a muñ ndax sëñ Fallou danaan wax ni ñaar ñu fi bàyyi xaj ak xajo xaj seeni bon bon ak xajo seeni bang-bang kon nit ku mënoon a muñ la nit ku yaatu la itam ku yaatu dënn ku mën a xajoo ñëpp nit ku lewet lool ko xam yëkkati si tug jëm yombut lu dul ni nga benn doomu aadama mbaa nga benn santaane sun borom bi waaw su benn loolu rek mën ngaa bañ a xam ci ko nit ku tabe ndax ba mu ganee àdduna ba mu lim fi jógee musul jóg di kër-këri waaye mustam dencukaayu xalis lépp lu musa ñëw delloo na ko ci jaam yàlla yi nit ku gore la itam mooy bàyyi nit ñi ak lim am te nangoo bokk ak ñoom li mu am ku mu musa gis jox na la cër te xoolut ci kenn lenn loo koy sedd ci sa bopp di nit ku lawet di ku ku dégg ndigal boo xam ne fa ko sun borom joxoñoon foofa la tegoon tànkam jikko yooyu nag mooy jikkoy sang nu war ci nun génération bi ñu jéem koo dund mooy jéem a takk jikko yooyu mu diw say ñu jéem koo jëmbat ci sunu bopp ndax jikko moom daa firi boppam mooy lu ñuy jëla di ko suuxat waaw jikko da nga koy ji ci sa bopp di ko suuxat benn par benn néew ñu nag ko toppandoo mel ni moom ndax ak jagle am na ci muy barab bi mu bi mu feeñee ak diggante ñi mu feeñ waaye ku ko roy ci jikko bu ñuy lim ñu baax des na la ci limaale te loolu rek mooy li am solo kon noo ngi sant suñ bay bu baax a baax ci njàngale mu leer mi nga xamante ni doon na génn waaye noo ngi delluwaat di ziar bu baax a baax kii ko fi nekkal di Serigne Cheikh Mbacke Aliou nekk ci njabootuk buntu njabootuk Serigne Aliou Mbacke gépp nekk itam di kilifa kër xarit Maam Diop gépp di seen kilifa di ñaan suñu borom yàggal taxawaayam te wéral ay cëram di ziar mboolem rakk yi nga xamante ni ñoom la bokkal suñu àll yi di leen ñaanal itam ndono lii leen sëñ bi bàyyeel ñu sàmm ko ba yóbbu ko fu gën a kawe fa mag ñu doon mébét te mooy jàng ak jàngale jaamu yàlla ak liggéey yooyu moo ak yar loolu rek moo doon ndono li muy jàng ak jàngale ak yar jaamu yàlla ak liggéey naka jekk bañ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci lool yi rek la nekk lii nag daa bokk ci tomb yi nga xamante ne ni su màggal gi jub see danañ ci fàttalante ak bokki talibe yi danañ ci jàngalante ak ñoom ngir nafaraat ndax jamono fi mu toll nii nii dafa xaw a doy waar jamono dafa jaxasoo mel ne référence dafa jaw waaye buñ bëggee référence rek dañuy delluwaat ci mag ñi te mag ñi la ñu waxoon rek tilka azaruna iza aratum an taarifuna fattabiu azarana moo tax ñu delluwaat rek ci njàngale mag ñi yennaat jàngataat seen seen mboor ngir man cee sowe suñ bopp noo ngi jégglu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa